démb si ngoon daf ma woo ne dañoo bëgg dem jëndi moteur pour préparer màggal bi suñu yite yëpp Serigne Touba la amuñu leneen maam Thierno borom daaru Serigne loolu rek ci loolu la ñuy dox après démb dañoo dem pour mu jënd lu ko moteur dem nañ ba yëmbal dem nañ ba yëmbal mais dugg ci benn corner foofu noonu xool fa lañ fa bëgg mais moteur bañ fa fekk noonu normal baaxul am benn waay bu ñu jox numéro nañ dem yaraax ndax foofu mi ngi wàcce ni urgent ñuy dem. après par la suite ñu dem ba bay waaj a egg magasin ñu seen policier yi taxaw ma ne ko sawaay mu ne waaw ñii dañuy jàppe mun ne ma jàppe wuñ ñii jàppe wuñ mu a dem ma ma tourné sama engin mu tourné topp ma ni nañ dem ñii jàppe wuñ ma ne ko ñii dañuy jàppe xaar ma laaj di laaj mécanicien yi nekkoon fa ba xam amuñ benn yoonu teggi boo xam mën nañoo wër policier yi gars ne fii benn voie la amul teggi mais policier yi jàppewuñ dañuy vérifier rek après moom par la suite dafa tourné rek ndax man maa ko njëkk moom moo ma njëkk a dafa tourné rek accéléré dem. Ah, dañoo jiitlante moom mu jiitu tuute rek mu accéléré dem après waaw policier bi gendarme bi njëkk a taxaw moo ko dóor xeer fekk na gars yi seen nañ ko muy daw di ñëw corps bi lañ njëkk a tiiree xam nañ ñi carrément kii bu rëccee xeer bi ci corps bi la mën a dal waaw xeer lañ ko njëkk a dóor mu kaaw xam naa xaw a dalaat ci corps bi. loolu du yoon dañ ci war a wax bi moom si wàllu boppam. autopsie yi ñoom si boppam. buñ bëggee xam ne ba xam ni may wax dëgg la wala dëgg. booy bi buñ ko tiimee nii léegi léegi danañ gis su corps bi jaar ci moom. te ba léegi nii may wax ak yow ku ko tiim feene da nga xam ne kii corps bi da gaañ. alkaati yee ko def ñoom la. non corde ñoom buñ seenee ngay ñëw di daw dañuy tàllal corde bi corde bi dañ koy tàllal ba mu tàlli ñaret même buñ la dóorul dara sax yow ci corde bi nga jëm far force parce que pare nañ pour mbaal la corde affaire moom moo doon dawal waaw koor bi dóoruñu ko dañoo doon taalal koor bi yëfi agresseur yooyu lu agresseur yi daan def léegi alkaati yee koy def ndax ñoom ñooy band yi am këyit corde bi waaw corde mais xeer bi moo ko njëkk a kaawaloo ah, mu perte waaw parce que avant corde bi ki ki taxawoon moom ngay njëkk a jot ki ko dóor xeer moom nga njëkk a jot après boo avancé dans cinq minutes cinq cinq kii rek boo ko avancé rek après corde bi nga siy jot les corde bi action boobu amee rek ñoom corde bi définitivement dañ ko lem dugal ci biir oto bi man dama présenté wu ni man ñoom ñoo ànd mais nanguwuñ ma taxaw. dañ ko dàq ci benn oto moo ko for andi ko. dañ ma def naa fa quatre heures yoo xam ne maa ngi taxaw jàkkaarloo ak ñoom mais ñoom tamit. seen xel yëpp mi ngi ci man quoi ndax nan naa leen ñii maa ñoom ñoo ànd. boobu fekk boobu noonu ni mu tëddee noonu man xam naa ne kii dund. tiim mu ni may ñu ma ko ñoom si boppam mu yi ci boppam ñoom mayul loolu ñu ngi koy wàcce télé bi sa waay mi ngi fi xumee xam naa ne kii du dund ndax instant boobu mi ngi sañee bu baax. sapo rek man sama wàllu bopp bi ma waree ñëw fii géejawaay pour ñëw annoncé leen ko pour am numéro magam bu góor bi dama dem ba géej di ko wëri ji magam bu góor géej dem naa ba géej di ko ndax damaa ñëw ñu ma daa fubali ji te bëgguma dem si yaayam di ko wax dafa xaw day xaw doy waar. man bi may décoller di ñëw fii nii ci la sapeur di ñëw te instant boobu sa waay man xam naa ne kooku mënatu même foo kenn sapeur ñëw nag jël yóbbu rek la mën mënul leneen te noonu la demee dañ ko teg si woto oto bi seen woto oto boobu. dañuy ñëw di xool dañuy ñëw di ko vérifier bu kenn xoolee après tourné dem taxaw monté waat keneen tourné waat di xool. noonu lañ ko paqueté si ginnaaw noonu tëral ko noonu après benn gaan bu doon jaay fleur foofu noonu xam nga voie day am ñoo xam dañuy teg ay pot de fleur gàlla yeeg yooyu kooku sax dañ ko yëkkati fi mu toogoon noonu te kooku seen juste juste place am fa ne mais dañ ko yëkkati ni ko demal nga déplacé wu ba nee nga xaar ñu ndax boobu xam nañ ne def nañ loo xam ne waruñu ko won def. es boobu mi ngi bëgg a jóg gaa yi ngi koy jéem a wàcc télé mais moom mu ngi bëgg a jóg te mënul jóg ndax instant boobu mi ngi sañee bu baax. mais bi mu nee nii man seen naa corde bi nii quoi lim tamponné si dafa daf ko marqué. waaw ah, loolu mooy lan corde bu ñuy. te bu ngeen bu ñu ko tiimoon nii léegi léegi bu doon loo xam dañ koy wane nii ci ay réseaux sociaux ak yooyu noonu kon loolu ñun jaral nañu ba lu ko raw dañ koy génnee wane ko. dem ba ci morgue bi wan leen ko mais du ko jar ndax wuyu na borom. te barki Mouhamed ak jouru tay bi nii yàlla bu ma raw laa la wax corde boobu boo leen ko xoolee mu ngi ci fiyam laa la wax barki Mouhamed. sapeur ba muy ñëw man dama dajeeg sapeur rek instant boobu jaaxle naa ndax toog naa fa temps bu bëri dem naa ñaan buumi pour xama wax ak ñoom mais nanguwuñ ma may ma taxaw foofu yëpp man dama woo sapeur ba sonn jëluñu ma ñoom ñoo ko mujj obligé di ko woo ñoom ñoo ko njëkk woo sax mais temps boobu moo diire sapeur avant moo ñëw rek dafa yàgg. vers 5 heures la 17 heures heure yi jàpp 18 heures waaw sapeur presque 19 heures bi may décoller war a war a jugee foofu noonu pour ñëw géejawaay laay laay dajeeg ñoom dajeeg ñoom ñuy ñëw di ñëw si si si si koor bi. ah instant yi de soxna si wax dëgg yàlla man sama sama reef boog jeex na ma dara parce que sama lépp moom la quoi moom laa xam man moom la xam loolu la demee. lu ne amul lu ma ko defal nag mais moom li ma defal li ma metti mooy li ma defal man sama wàll bopp te moom fekkewul li ma ko war a defal loolu kese. moom mu met si affaire yi mais le reste dañ koy bàyyi si loxo suñu borom waaw ñu koy def nag moom doole lañuy ñuy jaay yàlla am na ko ba mu doy billaahi wallaahi wataalaahi te xamuñ ne wàllew la sax kii mosuñu koo xam après la ñuy xam ne waaw ñoo lay fay soxna xam ne bi ñëpp a woo ko Fall laa tudd sama jumeau la ñoo doon ànd quoi ñoo doon ànd fu ñuy dem même démb bi muy dem fa la ma bàyyi place ba mais ndax tàggu na ma daa am benn moteur bu ñu doon xool benn moteur yu yaraax waaw pare mm-hmm. si toog ba si yàgg 18 heures di naan café ñu woo ma ma jumeau daa def choc si laa ñëw la woote jotuma ko ma woo sapeur ñu ne ma ñëw nii di dem dalal am mm-hmm. ma daa dem dalal jàmm ñu ne ñu di dem sétéwoo si laa dem sétéwoo nag fekk ko fa ñu ànd ak corbillard bi demaat fële demaat dalal jàmm ñun dañ ko fay téye ba suba mhm. bu ñu xëyee ne si lañ ko récupéré doog a dem doog a dem feneen CTO. ren moom dafa ñàkk bakkanam sur le coup. waaw daa ñàkk bakkanam bi mu defee soog foofu. Mhm. da ñàkk bakkanam. lan man damaa jékki rek ñu woo ma mais xam naa ne daal moom. Mhm. buum yi génnuñ si. parce que ñoo leen ñoo leen encaissé ñoo leen jàpp ñoo leen dégg dañ leen a mbaal. ñoo leen de waaw. ñoo leen rey de ki mu àndaloon waaw parce que ak mécanicien bi bi nga xam ne moo doon jëli moteur bi pour ñu xool ko moom mooy yem si fee bi dañ leen a arrêté ñu bañ policier yi si boppam laa la wax buñ la jàppee sax nga bañ dañ lay sànni barrière rek luñ jot dañ la koy dóor comme ni ñu ay ginaar lañ jàpp nit ñi di rey si nii nii nii te du mujj fenn dëgg yu moo amul loi barki Seydina Mohamed. su ma déggee maanaam euh, manifestation ñuy liggéey ñun duñ dem manifestation. manifestation bu amee défense ñun dañuy wàcc ñibbi xool ñu jaar ñibbi xeexuñ xuloowuñ doomu jàmbur nga lor ko si nii nii nii dafa yomb te du mujj fenn rey nga doomu jàmbur du mujj fenn fenn fenn. te ñoo ñun ñoo bokkoon di liggéey ay démarré ordinateur pièce oto la ñuy jaay pièce détachée ci dañoo def li ñuy def daw bi defee loolu fee bi mu amee dañoo daw. waaw xaalis moteur bi. booy bi yoroon na trois cent et quelques mille. gisuñ xaalis bi ba nii nii nii mënuñ la xaalis bi fii la dugg. waaw léegi tamit mbëkkul miir laalul dara ñoom ñoo leen mbaal ñoo leen mbaal buum booy daanu bopp bi dal si territoire bi ñoom ñu daw bàyyi ko fa. mais bi ñu nekkoon ba mais fekkee ne am na ay vidéo surveillance lépp dina leer waaw. dem na autopsie mais ba léegi man xaw ma autopsie bi nu mu demee parce man talu ma ko woon sax maa waaw. tey lañ ko jot. waaw tey lañ ko jot ci suba. Euh, ban message mooy ñu def seen liggéey rek te xam ne si nii ndawi réew mi fii nii liggéey jaamu yàlla lañ xam xamuñ leneen. kuy def leneen yaa xam mais ñun liggéey jaamu yàlla lañ xam kon nag war ñoo mën a jël nit ñi di leen rey si erreur te joxuñ borom moto yi cër da nga yor bandooñ gaan di dóor waar di xëy di wàcc def ko parkile ñu jàpp la xëy fay la nga bàyyi sa gaale 4000 ñu fay ñu jàpp la bëgg laa fayloo 6000 francs doo daw da ngay daw ba fexe noo si génne léegi boo dawee nag loru ñu dem bàyyi la fa ñu rey doom jàmb si erreur am na loo xam ne rafetul barki Seydina Muhammad moo man bi ñu xëyee bi ñu julee si jaaka ji rek ba pare deux heures la indi café daal di xaw a xamal bi mooy apprenti bi mu xaw a taax si kawam ne ko del toog si place bi affaire yooyu noonu moom tàng maa naa ko sawaay waxal ak booy bi ndànk dalal après nag laa gëj a am ay nouvelle am ba si bi ma koy woo jotuma ko si lañ ma wax ni soge ne si laa jël moto daal di dem fële taal même man démb benn kaas café ñu naan te en plus quinze heures demi woo na ma téléphone ñoo bokk fu ñuy liggéey di foncé mais nit ku baax la rey nañ jeune jeune bu am vingt cinq ans billaahi salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar salaamaaleykum waaw defe naa ne kii taxaw nii di ma filmer xamante nañ ñoo dëkk waaw ku ñu xam-xamee ñu ci liggéey xëy wàcc toog sa kër di wax ni ki dem nii yàlla na suuf oyof si kawam mais man su doon sama sago maa koy njëkk a jiitu ah, ndax kii nii dem nii kii mooy sëñ Saaliw ma ko dégg mu saaga wala mu wax lu bon si gémminam démb ba ma xëy see moo ma jox kafe ne ma naanal ndax gëj nañ maa gis kii xam na li may wax kii taxaw nii di ma filmer xamee wu ma lu dul xëy wàcc bu ma gisul te daf may laajte samay rakk man maa ngi tudd Alaaji Malick kii xam na li ma koy wax bu baax ñoo ngi koy ñaanal yàlla na suuf oyof si kawam di dolli nag état ak gendarme yi nañ ñu jàppee comme seeni rakk bu ñu bokkal ndey ak baay man am naa jaayu kolonel am na naa jaayu gendarme mais dama jël sama lépp xam ne kii sama mag la sama papa la sama lépp la kon ñoom nu bët yooyu lañ ñu war di xoolee waruñ ñu xoolee benn bët bu ñaaw ñun dañuy génn si kër xëy liggéey wàcc ñibbi si waat si kër waaw wasalaam asalaamaaleykum borom moto yi état beeg police yeeg borom oto yi kenn ñu te baa ñun daan doole lañ xam barki sëñ Fallou daan doole lañ xam defuñu lu bon defuñu lu ñaaw ñiy def lu ñaaw ñoo xam mais ñun liggéey ak jaamu yàlla lañ xam barki alxuraan oto yi may ñu dara ci tali bi police yi waxi nopp da ngay xëy liggéey am journée cinq mille ñu bëgg koo te nga war a yóbbu kër ga bàyyi loolu wax leen ci te yàlla tax ah. dañuy dund naasa bil xaqi rek dëgg dëgg moo njëkk moo mujj si la lépp xaj alxaqi min alxaqi dafa manqué Sénégal man Bamba laa tudd Bamba ki fi jógee tey de magam bu mu bokkal ndey ak di taaw ci kër gi maanaam moom ñoo nekk Espagne mu jël alalam lépp teg sama loxo xale bii liggéey rek la xam tout récemment yàggul dara mag ji woona ma ba ma wuyu ko mun ma joxul diw temps du ma wax som bi mu ko jox mu def ci poosam di liggéey heure bu mu indee conteneur bu ñëwee bagage yi dama koy woo jaay ko mu dem liggéey rek la xam liggéey ak jaamu yàlla Baye Fall la démb à ma grande surprise may waxtaan ak magam ñuy waxtaan ba ay 19 heures mun ma xaaral ñu ngi may woo xaaral ma jël appel bi naka def boobu nouvelle bii lañ koy wax ma wàcc tëj sama magasin di ñibbi ñu woo ma dama Baye dafa def choc ma ñun ma sogo moto bi ma demee man fekkewu ma mais ñi fekkee liñ ma wax mooy que ni biñ leen arrêté booy bi doon dawal da doon jéem a daw mais gendarme yi ñoo yëkkati buum téye ko ci digg tali bi ñu ànd daanu te loolu waa Yarax yëpp seede nañ ko homme de tenue yi ñoo yor buum taxaw ci digg tali bi moto bu nar a daw ñu xëcc buum bi mbaal la nga daanu te loolu rafetlu wuñ ko mos naa toog tele Bouba Ndour wax ko. bi mu ko waxee gëmuma ko dama ne lii mënut a nekk booba day wax rek mais bi ma demee démb lii daal sama rak ma ñëw am ci ay témoins ci laa xam ne lii ñu wax dëgg la ñu ngi koy ñaawlu nag pourtant ñun ay sénégalais lañu France rey dañ fa benn doomu aadama barki démb peuple bi yëpp a génn dëkk bi yëpp a génn manifester yàq réew mi procureur dafa joxe décret ñu arrêté ki def loolu mais Sénégal pourquoi chaque jour chaque jour crime am rey am. ñu ne lii ci homme de tenue la dugg la jógee te duñu gis benn suivi duñu gis benn suivi loolu du yoon bu fekkee ñun ay ginaar la ñu jàppee ñu wax ñu ko amuñu njiit vraiment amuñu ay njiit quoi ki mu àndaloon mi ngi fi mais dafa mel ni dafa perdre connaissance boo ko laajee du xam sax lu mu lay wax boo ko laajee du xam sax lu mu lay wax ñu ngi koy ñaawlu trop ñu ngi koy ñaawlu trop bu ñu ci mënee dimbal nag ñu dimbali te yàlla tax. waaw man Babou Mbaye laa tudd. Mhm. kii sama sama rakk la sama doom la maa ko yar waaw mais ñun toujours dañuy am lu ñu metti ñëwoon ngeen fi daaw xaw ma daaw jéeg si genre affaire yu mel nii ren ngeen ñëwaat fi toujours rek ñun lay doon quoi lan moo tax lool lan moo tax suñu autorité yi respecté wu ñu lan moo tax takk der yi respecté wu ñu arrêté nit pour vérifier ba xam am na këyit wala amul këyit la ma ci jar ngay jël di ko sànn ay buum bay rey doomu jàmbur nii soutien de famille xale bu ndaw amagul jabar amagul doom li muy daw yëpp ñëw indi yaayam la ak papaam ñu léegi li ñu bëggoon mooy population bi lay waxal ñëpp ñëpp amul jeunesse amul toog di xaar amul dara dañoo war a jóg ñu def fas ak ñi jàkkaaloo ak ñoom gis ngeen dee benn ñoom seen tenue yi ñu sol nii taxul ñu mën ñu parce que dëkk bi li koy mën a régler mooy ñu jóg jàkkaarloo ak ñoom sinon bu ñu toogee nii ngeen interroger ñu dem dugal ci site yi gars yi lire commenter mu jeex même chose ma répété waat ñu ñuy rey comme ay weñ loolu moo fi war a jeex man maa ko wax man la baabu mbay dëkk fii Géejawaay damaa bëgg muy leer ñoom yii ñii bu dakkul ñu dañuy jog jàkkaarloo ak ñoom ñoom mënuñu ëpp ñu doole léegi-léegi ba ñuy ñëw ñu ngi si yoon bi ñu ngi am suñu benn booy am ak ñoom altercation mais xam nga lu ñu wax dañu yéen dañ leen di sifaay te duñ mujj fenn léegi fii ci autoroute bi ba ñuy jëlee koor bay ñëw gendarme yi monté foofu ci total bi foofu ci autoroute bi si Lobat ñu nañu dañ leen di sifaay te duñ mujj fenn parce que ñoom dañoo jàpp seen tën ñuy sol ak seen lacrymogène yu ñu ñu yor ci loolu lañ yaakaar ak ñoom bu ñu defee yu mel nii du mujj fenn parce que dañoo ànd ak ay autorités yoo xam ñoo leen ngemb yaa ngi comprendre xamante ne li ñu def du mujj fenn ñun ñu war a jóg parce que ñag yi ak dëkk ak naar yi di def lu mel noonu ba muy yooyu di denc seen dëkk ñooñu gënuñ ñu ëpp ñu fit population sénégalaise laa wax yii nii fi la ñu ngi toog nii di ko naqaru nii yem ci ay commentaire ci yii nii nii lay mujjee bis bu nekk ñu rey comme ay weñ ku mu egsiwul sa kër nag doo xam li may wax nii parce que ñu dañoo yàgg ay cas ñu ñu ngi ci tali bi ñun banlieue lañ dëkk façon bu ne gis nañ ko mais chaque jour bu amee rek même chose mooy répété dañuy ñëw dem si rajo yi di njëkkante lan ma tax ñu njëkkante di fenn di wax ay ministre ay booy bi dafa dem dafa saaraan dafa mbëkkale fa mbëkkalee te ki ki mu àndaloon ñëw taxaw fii léegi wax ni booy bi ko buum lañ ko tàllal mu daanu lan mooy problème bi dañoo war a respecte dañoo war a respecté yaa ngi comprendre dañoo war a respecté jox ñu ci ku fi jóge. non ko baax kooku man mën naa wax ni lépp lu bari nekk si man maa ko si moom parce que comme ci lu muy mën a dugg rek day ñëw laaj ma samay xalaat ba muy nekk booy ba muy nekk tout tànk fu mu ti dem màggalu Touba dama ko doon uuf sama fii ñu dugg Njaga Njaay di dem moom amul benn nekkul ay waxu lii moo xew ni moo tax ñuy wax de ñun yooyu yëngaluñu parce que ñun duñu fen duñu wax loo xam ne nekkul dëgg mais waa comme ñi bu yeesoo liggéeyam ak respecté mu nekkal amul leneen lu muy def man 23 ans parfait non comme doomu banlieue rek fii moom booy duñ ay ngaaka fii ni ni dañ ñoo respecté booy li ñuy dang-dang lépp di rey seen bopp seen parents ñoo tax papaam wax na ko fii démb sandwich bi mu njëkkee bi mu njëkkee démb booy bekk jëndal bëkk démb si guddi mu xëy ko si ce comprendre kon ñoom nekk duñu ay seer li ñuy dang-dang di tës tës di guddee wàcc yëpp seen waajur la dañoo war a jox cër xam ne duñu ay weñ waa banlieue bi fépp banlieue bi région bi yëpp fépp laay wax sax moom mooy caatu yaayam bu góor am na am na beneen am na am na rakkam bu ndaw moom moo topp caat bi moo topp si moom moom du caat mais am na am na rakk am na rakk rakk bi moo tudd Mouhamed am na koo xam ne même chose moom accident la woon ci yoonu Touba bi kooku moom laa tuddee sama doom ba loolu amee semaine teg sama doomu judd ma tuddee ko ko yaa ngi comprendre kon fii ñun dañoo war a may jàmm ñu jox ñu sécurité yaa ngi comprendre disposition bi dispositif bi ñuy génnee bu ay manifestation amee wala affaire politicien nañu ko génneel dafa ñu ko sécurité respecté ñu xam ñoom tenu boobu ñu sol taxuñu ëpp ñu fit taxuñu ëpp dara bu caaxaan jeexee ñoom amul dara lu ñu mënal mais dañ lay sot sol seen tën yi bu ñooy boo fenn dóor la du mujj fenn comme yii nii rek li mu ñu wax léegi rek dañ la ñuy tànk te du mujj fenn ci yooyu ngeen ñu war a taxaw waxal ñu ci ñu am ñu am suñu sécurité ñun ragaluñu leen nañ bàyyi rayaate bi ñuy rayaate nañ bàyyi loolu